Gaston Production présente le cadeau du nouvel an. mbokk yi la premier janvier 2023 ca arène nationale. Balla Gaye numéro 2 le fils de Double Less gaynde géejiwaay gaa ngi noonu xale bi nga xamante ne saa bu géejiwaay soxlaa mu jëli ji andi. mu war a jàkkaarloo nag ak Boy Niang numéro 2 le fils de Dégol cappaacoli baa ngi noonu ki nga xamante ne ni moo nekk ci xolu waa Pikine. moo tax ma ni c'est le combat de tous les dangers. Abdoulaye dàquma bëri dàquma xeex bu ñu wuree ci bëri nga xam ne moom dàquma bëri dàquma xeex làmmiñ nag aslem la nga nekk di wax lu la neex tamit ku daan sarax moom bu ko neexee wax dëgg yàlla daanu ñeenti yoon ci làmb yéeme woo bu dee làmb la mën naa ko jàngal bëri entraîneur am moom ci boppam ma jàngal ko bëri jàngal ko ni ñuy tactique de combat liiral ko ni ñuy mbëree ba bi siflee rek man la ku moom sax mën naa la ñii laa koy daane sama xel waxuma la ak moom tuuti na ci loolu Balla Gaye numéro 2 Boy Niang numéro 2 loolu yëpp nag mbokk yi di ngeen ko seetaan en live pay per view ci seen affiche point com mbokk yi yéen ñuy suivre seen site internet luttetv.com ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare tey mardi septembre ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay comme ni ngeen ko amee chaque jour ñu ci ànd ak waa Vice FM ca Gambie di ci ànd ak Mbirkelane FM ca Saloum ñu ngi nuyu suñu auditeur du jëmoo yëpp ak Babacar Sarr ah di nuyu waa Gambie yëpp suñu père Edi ñu ngi ko nuyu ak Ndongo Cissé di nuyu bu baax a baax Adja Gaz borom Angleterre ñu ñëw ci journal sunu làmb journalu record ak lesarènes.com ñu commencé ko ci site bi nga xamante ne moom moo di les lesarènes.com Boy Niang numéro 2. la xëy fësal wala boo bokk na ci li nga xamante ne moom la def ci àla unam di wax ni daal Boy Niang la tax mu dem bay croiser ñi nga xamante ne ñoom ñooy VIP yi dafa mel ni am na ay ndam yu rëy rëy ci kaat yoo xamante ni bokk na ci li ko poussé ba tax muy bëri ak ñi nga xamante ne tey ñoom day bëreel mu tudd Baye Mandione mi nga xamante ne Boy Niang bëri na ak moom daan ko bëri na ak Garga Mbossé ko bëri guy gi ba ci ki xamante ne moom moo di Sa Thiès mu ne quatre victoire yooyu na ci li nga xamante ne moo tax Boy Niang instant bi muy bëri ak li nga xamante ne ñoom ñooy ponkal yi gannaaw bu mu bëri ak ki nga xamante ni moom moo di Tapha Tine ak Lac de waaye nag ñeenti ndam yooyu bokk na ci li tax mu toog foofu noonu ba léegi palmarès Boy Niang numéro 2 tamit ba léegi Abou Ndour ñëw na ci di wax ne daal Boy Niang am na 17 combats am ci li nga xamante moom moo di 13 victoire waaye am li nga xamante tamit moom moo di 4 défaites 4 défaites yooyu ama neex moom moo ko njëkk daan moom Boy Niang numéro 2 février Jos daan 13 juillet 2019 waaye nag Tapha Tine moom moo ko mujjee daan le 19 décembre 2010 2021 mu mel ne Boy Niang numéro 2 loolu la Abou Ndour xëy tey jàngat ci moom bu ñu paree ci Abou Ndour dañuy ñëw ci journal bi nga xamante ne moom moo di journalu sunu làmb journalu sunu làmb nag ni mu koy xëy di defee fan yii yëpp rek loolu la xëyee waat ko ko mu mel ni bilan wu écrit yi la xëy di continuer di ko fësal rek tey nag ki ko def moom moo di Abdoulaye Dembale moo dem ba Lansar écrit Père Max Mbargam mu mel ne victoire yi bëri na lool waaye defe yi tamit xaw naa bari ndax am nañ 17 victoire am li nga xamante ni moom moo di neuf défaites am sans verdict waaye nag moom la mu jàpp moom mooy Lansar moom ñu ngay continuer rek di résister maanaam le père Max doon wax pi ak deux amul leen njariñ li leen amal solo mooy bokk waaye dafa mel ni Lansar ñu ngi continuer di bokk Siteu mi nga xamante moom mooy tête de ba moom ba ngay continuer di ba léegi di xaar ki nga xamante moom moo di Papa gannaaw ba ñu waree bëre ñoom ñaar combat ba mujjee Alioune Sèye Junior ba mu ca tegee Alioune ba Junior bëri ak ki nga xamante moom moo di kéwal mu def ak moom match nul mu mel ni dañuy des ba ne Lansar mu mel ni ay déception lañu fële nga xamante ne moom moo di Lansar taqee Abu Ndiaase ak ki nga xamante ne moom moo di nekko réel yile moom mooy révélation bi nga xamante ne moom moo di écrit ba mu mel ni Kowen si tamit ñëwaat na ci course bi ki nga xamante ne moom moo di Mama Lamine comme combat combat mujjewul sotti ndax drame bi nga xamante ne amoon na ñu des ba léegi rek ci écurie Lansar mu mel ni ténor yëpp journal Sunu Lamb mu ngi ñuy ña nga ñi ñi ña nga France tudd na ci ku mel ni nees Fogala Super Étoile Pakala ak Baye Baye Baye Ndiaye rakk ja mu mel ni ñoom ñëpp daal instant bi ña nga France états mu mel ni ñoom daal loolu la journal Sunu Lamb wax ci ñu ci ci Lansar mu mel ni booy Sadio lañ koy jeexalee mu mel ne moom mooy espoir bi nga xamante ni rassuré na bu ñu jeexalee Père Max Mbargane nee na bilan bi bilan bu xel mën a nangu la waaye nag il faut ñu yokk cere dolli ñeex bu ko defee bu déwénee ñu am bilan bu gën a wóor bilan boobu noonu. ñu des ba léegi rek ci journal sunu làmb ak li nga xamante ni moom moo di Tapha ak booy ak ak ak ak ak ak Bombardier mu mel ne seen combat bi gannaaw bu mu taxawee ñu war koo bëree le 12 février 2023 seen jàkkaarloo mi nga xamante ne ñi ngi xaar ñi ngi xaar mu neex te yëngu lool lool lool lool ndax ku ne xam nga di nga ci taqrib ci jàkkaarloob Tafatine ak ki nga xamante ni moom moo di Bombardier la ko Tafatine créé woon mu mel ni danañ jàkkaarloo waat dana ci taxam du ci taq loolu tey dina leer incha allahu rabi bu ñu jàmmaar bu ñu jàkkaarloo xaar la 12 février ñu daal di jàmmaarloo ñi tamit danañ jàmmaarloo mois de février muy Gris Bordeaux ak ki nga xamante ne moom moo di Ama Baldé moom Mamadou Koné xëy def ci ab ab ab article bu am am am solo gannaaw ba ñu wax Gris Bordeaux du jàmmaarloo ak xale yi may leen sens première fois muy jàkkaarloo ak ak xale muy Ama Baldé mu mel ni daal virage bu important la ci ki nga xamante ne moom moo di Gris Bordeaux gannaaw ba ñu waxee ni daal na may xale yi na may xale na may xale yi jël na benn xale bu ndaw muy Ama Baldé di caatu Falaye Baldé ñu des ba léegi rek ci journal bi nga xamante ni moom moo di journalu suñu làmb journalu sunu làmb la mu wane waat rek moom moo di euh, ki nga xamante ne moom mooy Père Bourkhane di président manager mu mel ni moom daal mu ngi wax instant bi la nga xamante ni moom mooy ay yitteem waaye kees ba tamit la nga xamante ne am nañ ko fekk na ko fa moo di huit cent mille francs CFA. gannaaw CNG ba ñu joxe seen bilan mu mel ni critique yi instant bi bari na torop torop torop. ñii ñi ngi wax gos ñii ñi ngi wax droite Thierno Ndiaye premier vice président CRG bu bu Thiès moom tamit xëy na wax li nga xamante ne moom mooy xalaatam nee na daal ñi ngi def li nga xamante ne moom mooy seen job ca nam waree nag lañ koy defee maanaam liggéey bu rafet a rafet rafet rafet moom la CNG instant bi di liggéey nee na nag dañ leen war a accompagner paa ñu nekk fii di leen sànni xeer de gauche à droite loolu Thierno Ndiaye moom moo ko wax premier vice président CRG bu Thiès mu mel ni tamit dañuy continuer rek ci combat yi nga xamante ne ñu ngi koy xaar déwén wala boog ci saison bi nga xamante ne moom lañ nekk Baba Diaw Thiam production moo war a ñëw le 25 décembre Buur Siin ak ki nga xamante ne moom moo di général bu Malika mu mel ni général bu Malika moom mu ngi ca kaw pont ba le 25 décembre dina ko wàcceem du ko wàcce incha allahu rabbi loolu daal boobu le 25 decembre daal loolu loolu yëpp di leer mu mel ni saison moom saison bi réussir la ki nga xamante ni moom moo di Obali journal Sunu moom moo ñu xëy dañu ko wax ndax def na deux sortes yoo xamante ne yooyu yëpp da ci am li nga xamante ne moom moo di ay victoire ñaari ñi ko ci am victoire lamb dégg la muy Albouri ak ki nga xamante ne moom moo di Diarra 2 ñu war a bëre le 26 décembre le 26 février 2023 ah baa borom euh, borom borom borom borom Pogba moom moo tëgg noonu mu mel ni loolu mooy première sortiem Teranga Production Pogba Jibi Pogba ah borom ak yaay doomu nday Babacar doomu Babacar rakk Babacar xaritu Babacar mu mel ni Tonnerre def na deux sorties yoo xamante ne daf ko raté. tonnerre raté 2 sur 2 mel loolu lañ leen andiloon ci journal sunu lamb ak journalu record bi ah wala boog bu ñu jeexee ak journal sunu lamb foog ñu ñëw ci journalu record journalu record Assane Ndiaye la xëy fësal ni mu koy defee fan yi rek ak promoteurs yi mu mel ni la nga xamante ne moom la jàpp la gën a baax ci saison bi la gën a bon ci saison bi li ñu war a yokk li ñu war a li ñu war a wàññi bilan bi nga xamante ne def na ko waaye moom Assane jàpp na ni daal meilleur lutteur bu ko doon joxe ci saison bi Balla Gaye numéro 2 la koy jox meilleur combat bu koy doon joxe. ci li nga xamante ne moom moo di saison bi c'est combat Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ne moom moo di Gris Bordeaux lay jàpp comme miir combat di wax ne daal moom jàpp na ni ba Balla Gaye ñëwaatee làmb ji dafa yëngu lool lool lool lool lool lool lool lool ñu jeex révélation yi nga xamante ne jàpp na leen Mor Kankang jàpp na ni moom champion la day la ko làmb bàyyi xel Zarko tamit bokk na ci ñi ko frappé ci saison bi nga xamante ne moom lañ génn gannaaw bu mu toggee cinq yoo xamante ne bëriwul ñu am ay combat yu am solo am ci victoire Ada Fass tamit jàpp na ne moom Assane Ndiaye champion la ndax saison bi nga xamante ne def na ko trois combats trois victoires mu mel ne na journal sunu làmb bindee face à face bi noonu la ko record bindee ci xale mu ko Assane Waalo Gueye wan nañ ci tamit ki nga xamante ne moom moo di trompeur mi nga xamante ne moo war a ak agogo mu mel ni combat du rachat la pour ki nga xamante ne moom moo di kii ki nga xamante ne moom moo di agogo gannaaw ba mu defee quatre sorties carte sortie yëpp mu ñàkk ko ñu ngi nuyu ñuy bàyyi xel luttetv point com yëpp fooy mën a nekk si àdduna bi di leen ziare waa xew-xewu làmb ji maa leen nuyu bu baax a baax leen ziare ñoom Abdou Ba xarañ loo ah ñoom Cheikh Bass ah, ki nga xamante ne moom moo di Pape Demba ñoom am di Moustapha organe bu far bu jar ñoom ñëpp ñu ngi leen di bu baax a baax di leen ziare waaye waaye du ma fàtte ki nga xamante ne moom mooy moo Ndiaye directeur Serigne Mado ñu ko nuyu bu baax a baax di ko ziare di nuy tamit ki nga xamante ne moom moo di laay bu def waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy sama waa groupe waa groupe Lutte TV ziare nañ leen tuuti ay Sarr Omzo bu Garga Serigne Ndiour bu Osodu ah ak Balla Gaye 2 Omzo bu bu bu bu Ardo ah Mor Diakhaté bu Mbisaan ah, Ibrahima Badiane ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Demba Kër Masar ah Guèye Laf Soli bëgg nañ la bu baax di nuyu Dame Mbengue Pape Cissé bu Mama Lamine Sarr. Astou Mboup ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax di leen di jaare di jox ñëpp rendez-vous suba incha allahu rabbi